asalaamaaleykum mbokk yi topp si Ndindy Actu ni ñu koy faral di defee sa su nekk di dalal kilifa yi ñuy waxtaan ak ñoom si weeru koor gi seen émission ganub koor tey jii ñi ngi am mbégte jàkkaarloo kilifa gu mag di Serigne Mamoune Mbacke ibnu Cheikh Mouhamad Fadal Mbacke ñu fas yéene waxtaan ak moom si wàllub actualité ak xew-xewu jamono bisimilah sañ bi ñu ngi lay bàyyi nga yokk mbokk internet yi suivre Ndindy Actu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh أعوذ بالله السميع العليم الباقي القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما barkab Cheikh Amadou Fadal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ bi suñu yóbbu sell boobu noonu fi ñuy tàmbalee rek sëñ bi mooy wàllum xew-xewu jamono li fi mujj mooy gis nañu ni koor gi dañuy baaxoo jox cër diine si télévision yi. waaye tamit dañuy baaxoo diwoo lenn si waxtaankatu tarixa yi waaye daa mel na ni sa cëppaandaw la day am jur ay xiroo ak ay ŋaayoo li fi mujj ñëpp xam nañ ko kenn bëgg see dellu si si coow loo am si diggante xëy na ay nit ñoo xamante ni danoo jàpp ni danoo suufeel seen pas-pas ba tax ñuy tëkkoog yooyu tey en tant kilifa diine situation bii nga xamante ni mi ngi jóge si kërub diine yi noo koy jàngatee ak tamit ban appel nga siy lancé. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu sëñ euh, Babacar di nuyu sëñ Assane mi nga àndal di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ñëpp ak fu ma nekk ci àdduna si biir Sénégal ak biti Sénégal leen ziare leen ndokkeel ci weeru koru te di ñu nekk leen ci balu ak leen baal ak te ñaan leen ci jaamu yàlla lépp yàlla na ko yàlla nangu ci barke bi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, li nga laaj lu am maanaa laal waaye lu doy waar la itam Sénégal di réew moo xam dafa dafa dafa dafa doy waar Eh, damay wax rek ne eh, dañoo war a jël eh, mbir yu bëri di ko teg suñ kanam ki wax ku nekk rek ak fay waxee la la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam rek ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm bisu bisu bis bu mujj ba da ngay wax lu yiw mbaa nga noppi ñiy wax ñëpp bëgg lu baax tax ñuy wax bëgg lu tax ñuy wax waaye Sénégal dafa neexut a waxee da ngay jël rek kon bayit lu mel ne bayit ba suñu bay jaxate waxoon rek ne sooy wax na ngay peese say wax peese mbooleem ña ngay waxal te peese ña koy digg ak ña koy xool a digmati na ngay peese say wax peese mbooleem ña ngay waxal te peese ña koy digg ña koy xal xala digmati nit ñi dañoo doy waar te mën a gaaw a dëkkal nit fu mu dëkkul eh, te it dafa am suñu benn mbokk mu baax mu waxoon ne mën naa ko tudd sax monsieur Abdou Aziz Al Amin yàlla na yàlla yokk leeram doon suñu du suñu wala du suñu mbokk daan wax ne waajur mu tedd suñu Babacar Si daan wax ne eh, nit ku ko xeebal ñett mi yaa ko tooñ du sax waaye waxin la mais nit ki ku ko ku ko xeebal sëriñam yaa ko tooñ nit ki ku ko xeebal bisam yaa ko tooñ nit ki ko xeebal soxlaam yaa ko tooñ xëy na yu bari sax du xeebal kenn yëfam waaye wax dafa dafa doy waar te am baat yu xaw a gaaw a rëcc eh, bu ko defee rek kenn ku nekk bu ne la am te ngay tàmbalee yem ci rek jàmm di daan ñooñu ndax ñu tax li yëngal dëng yi ba boo waxee benn baat muy indi xëcc wala ñu koy dégg neneen te yéen ngeen baal ma réew mi di réewum ceddo réewum ceddo moo xam ne ñi dañoo gaaw ci taw yi ay wax dañoo gaaw ay wax dangay ngay wax wax jublu ci lu baax wala jublu ci ak defar wala jublu lu boole nit ñi lu leen dendale wala leen àndale waaye ñu xëccal la ko tawil la ko tawil tawil ba dugal la ci yoo xam ne taxutoo nga jóg moo tax bu ko defee rek euh, dañuy gën a euh, dellu ci li yonent bi xoon rek alayhi salaatu wasalaam boo ko waaji ne dénk ma mu ne ko téyal sa lii dal jàpp ci làmmiñ ji maanaam téyal soo làmmiñ mu ne ko dénkaat mu ne ko téyal sa lii mu ne ko dénkaat mu ne ko téyal sa lii mooy téyal a defar lu bari waaye mën a yàq lu bari te dama yaakaar ne euh, wax ju ci bari la ko yëkkati la ko yëkkati lu rafet la lu baax la waaye xëy na nañ koy déggee ak nañ koy dañ koy dañ koy dañ koy utiliser loolu rek moo ci moo ci indi yooyu yëpp waaye yaakaar bu ne ka ko waxoon yàq la ci woon mbaa tuutal mbaa sobental mbaa wàññi déedéet ndax ñooñu ñu ngay tudd ñu ngi juñ ci bari xam naa leen xam naa ñi ki wax xam naa ña tontu xam naa fa ñu bari waaw jéggalu mu dina am lépp jàll ci jàmm na dama yaakaar ne dafa am ñoo xam ne yàqale neex ak jaxasee nit ñi ak yëngal dënn yi ndax Sénégal affaire de tarix ak dafa sensible ba nga xam ne lu ci yëngal dënn yi dafa yomb bu ko defee da ngay benn wax benn wax ñu dindi ko parce que ki wax wax ji nee ma dañoo jël photoom dañ la ko photo kilifa la waxoon lépp ñu ñu ci ay baat rek daal da def montage fekk na moom jubluwul ci loolu loolu ci contexte bu yaatu la ko doon waxee waaye ñu tànn ci lenn rek donc yooyu la yu xew yoo xam ne yu ma demaytu la yu ma tey la ndax Sénégal damay wax ne réewum jàmm la réew mi dafa tuuti xat damay wax ne Sénégal ku fi wax mbaa ngay def mooy ba wax lu baax ndax koo fi gis sa mbokk la mbaa muy sa sa wala muy sa xarit muy sa xaritu dafa tuuti te ñëpp ñoo ko bokk kon gannaaw ñoo bokk li ñu bokk nag te mënuñu ko séddoo li sëñ bi daan wax rek ay nit bu ñu séddoo loo xam mënuñu ko séddoo mënuñu ko séddale dañuy kenn mënu ko jël bàyyi sa morom dañuy rafetal bokkin wa te loolu mooy réew mi loolu mooy deret yi ñu bokk loolu mooy diine ji loolu loolu mooy islam bi. loolu leer na macha allah mais contexte bi ñu nekk nii sañ bi dafa mel na ni euh, tarixa yi dañ see am wàll na mbas mi dugg si biir réew mi ndax njiit réew mi sollicité na ba tàyyi si ñi ko yor kilifa yi ñu mën a wax ak taalibe yi si lu nu yëgul waaye dafa am leneen lu amaat mooy bi ñu demee ba ci biir gis nañu ni taalibe yi ñoom jàpp nañu ni tëjub jàkka yi arrangé wu leen parce que dañu war a yàlla comme ni nga ko doon defee bu jëlee exemple gox mel ne Touba yàgg di koy ñaxtu. finalement jiitu mi dafa teggi tànkam waaye am na yeneen këru diine tamit yoo xamante ne nañu fa nu nekkoon nekk ba léegi duñ dem ci jàkka yi ndax. coronavirus bi dafa nekk source de division ndax état aussi comme ni ko ñenn ñi waxee dafay diviser pour régner ak loolu lu ci responsabilité kilifa diine yi. ah Sénégal nag sëñ Babacar xam nga defa doy waar li ñuy wax da da da damay tooy suñu bopp maanaam damay tooy Sénégal day wax ne Sénégal day réewum pluralité ba pluralité ci lépp war bañ nañ ko ba koor gi bu ñëwee dañuy am plusieurs comité yu bokkul léeg-léeg ñu am tabaski yu bokkul loolu dañ ko fee tàmmoo. Eh, te it kilifa diine yi dañ leen a jox cër boo xam ne eh, kenn ku nekk rek mbooloo ba nga jiite ci kanam da nga ciy am da nga ciy bëri dañ leen di déglu ci lu bëree bëri eh, lii yàgg na fi du lu bees du lu bees te itam état moom nañu ko waxee toujours état moom li koy arrangé lay seet. li ko lay seet te itam koo xam da ngaa jaboote ñëpp foog dangay ngay maslaa ñëpp doo mën a jël yenn yenn sévérité yi day day day waar parce que bu ñu fàtte ne Sénégal état laïque la donc religion affaire privée la. donc état bi dana maslaa dana dana dana fexe garder ordre public mais nag mënta imposer yenn décision yi parce que gérer wul religion bi état bi état laïque la état laïque day fu mën a yem dana fexe ba ordre public am sécurité am jàmm am waaye nag du mën a imposer ñu def leen nii wala dox leen nii mën naa joxe ay insigne nag mën naa joxe ay directive waaye nit ñi tam nag gérer seen diine affaire privée la kenn ku rek yaa xam na nga koy gérer te comme que dans Sénégal di réew moo xam ne diine euh, fi am doole yàgg fi taxaw fi kenn ku nekk nag ña nga yilif sañ nga waaye état bi moom day am loo xam suñu ko digle waaw bu ko defee nag euh, noonu rek la mel naka ndax naka jëkk noonu noonu lay demee ndax itam am na ñoo xam ne même heure julli Sénégal boo seetlu bokkuñu ko mm. waaw boo bokkuñu heure julli te julli naafile yi ñu def naafile baax na lool waaye waaye waaye sunna la naafile la waaye julli farata yi sax bokkuñu heure bu ñu koy def te loolu kenn mënu koy imposer loolu kon da ngay xam ne kon gannaaw diina affaire affaire la noonu rek lañ koy mën a mën a gérer gestion privée le teg ñu yàgg ci état islamique bu fekkoon ne moom nañ ko xam ne état islam lay nekk islam dañuy appliquer di appliquer di a wax waaye comme état bi état laïque la day am faaw dafa da ngay gérer sa communauté de façon autonome loolu sax la constitution bi wax les communautés religieuses dañuy gérer seen mbir de façon autonome état bi dañ jàppale dañ encadrer dañ dimbale waaye ndax état état laïque la kon communauté yi communauté religieuse yi kenn communauté bu nekk sa kilifa moom ngay déglu moom ngay moom ngay moom ngay moo lay wax da ngay def waaw. waaye euh, dégg benn imam bu wax naan fi mu toll nii kilifa diine yi ñoom amatuñu baat mennum waykay docteur ñoo am baat ci jamonoy mbas mi parce que ñoom ñoo maîtriser la situation loolu est-ce que moom lu yàlla. waaw kilifa diine xam nga dafa am fu ñu mën a yem. moom parce que mënuñoo weesu joxe seen ndigal mënu si mënu weesu joxe ay ndigal te ñu yilif ndax amu fi genn kilifa dina goo xam da ngaa yilif ñëpp mm-hmm. ay ñenn nga yilif rek ñeneen ñeneen yilif leen amu fi kenn koo xam a ñeen ñoo leen mm-hmm. a jox di sàkku am a jox digal waaye am ñoo xam ne loolu ñu toog ni wala joxe ni sax dañuy bañ ndax dégluwuñu nañ seen conscience wàcc weesu na ci joxe digal ku ñu yilifut kon ñi ñi mën a jox digal rek mooy ñi ñi yilif ñi ñi defee ñi ñi yilif nag ci côté ba ñeen yilif dañ leen mën a jox digal waaye Sénégal xam nga dafa bëri contra contradiction bu élection politique ñëwee ñu ne bu kenn joxe ndigal. Mm. kenn joxe ndigal moom koy dañuy ànd man te bu wéy ndigal ñu ngi koy wéy ba léegi ñun ñi ñun ñi xam ne Sëriñ Muntaxa Mbàkke lañuy la ñuy yàlla na fi yàgg te wér mm. lu mu ne def nañ ko mu la def ba nga jàng alxuraan jàng nañu alxuraan ba nga jàng xasee jàng nañu xasida ba ñu ne nañu nañu nañu nañu julli ji te benn benn dem ñu des toog ñu des benn benn dem nañ ci des toog ne bi mu ne nañ julli si waat sàmm nañ julli bu ne bu ñeen duggee bu tëyee jumaa ji ñu taxaw ñu bu ñu tëyee jumaa ji ñu taxaw bu ne yeneen jumaa yi nañ ko tëj ñu tëj ko bu ne nañ ko ubbiwaat ubbi nañ ko ñun moom la ñu déglu kenn ku nekk nag sañ nga déglu ka ngay déglu ku déglul kenn nag bu neexee dafa ñu déglu kenn Sénégal nag njëkk loolu lay mën a doxee waaw amu fi kenn koo xam ne ñëpp lay déglu amut loolu mosu mosu fi am te yaakaaruma dina fi gaaw am itam ñi dañuy déglu sëñ diw diw ñii déglu sëñ diw ñii déglu groupe diw ñii déglu groupe diw ñii déglu groupe diw waaye kenn ku mën a joxe ndigal ci ñëpp nag mu am nañu ñu ubbi d' état moom na ne leen a yem waaw bi bi nañ tëj am nañu tëjutoon waaye mu forcé leen foog da tëj donc kon nga xam ne kon lii Sénégal moo neexul deret <laughs> moo neexul deret parce que dañuy dund euh, contraste boo xam ne dafa doy waar parce que quatre-vingt-quinze pour cent wala pour cent des ay jullit bu nekk ñuy laïc xam nga loolu day contradiction boo xam ne dañ ko donné ci tubaab yi mais logiquement du lu war a am Sénégal bu fekkee ne dañuy dañ ko teg ci régle démocratie démocratie bi ngeen di wax démocratie mooy règle majorité mm. kon lu majorité bi d'accord ci lañ war a dox kon damay wax ne Sénégal am na fu ma commencé bindee sax loolu xam ne fii du barabam waaye ba damaa demoon boobu sax ba xaw a sori ba ne Sénégal du dëkk démocratique lu tax parce que mu ne majorité ba démocratie mooy la mooy fi majorité bu jëm luñ ne li la ñuy teg ñu xool la majorité bi woote ñu ànd ca te gannaaw Sénégal pour cent lu ko ëpp ay jullit lañ kon loi appliqué mais gannaaw defuñu ko nag dañuy wax ne kon am na côté boo xam ne du état démocratique formellement parlant mais teewul réellement li ñu dund nag noonu parce que imposé nañu wala doon nañ euh, laïcité. voilà euh, sëñ bi si analyse bi nga def nii est-ce que jotul. bu ñuy defati tëggati constitution ñu impliqué si euh, la diversité. rawatina aussi le socle mën naa wax ni si dundub Sénégal yi mooy les confréries yi parce que boo xoolee ni ñuy doxee dafa nekk en déphasage avec réalité dëkk bi kon jotul ñu mën a impliqué comme ni ko waa Iran defee mboor ñi yor mbooloo. ñu mën doxal suñu ëllëg. waaw loolu de mooy idéal bi. waaw waaye dama xamul ndax ñun danañ ko ñemeem déet <laughs> ndax xam nga ñun Sénégal lañ nekk Sénégal euh, ci état post post colonial mm-hmm. euh, suñu état dañ ko dañ ko donn ci tubaab yi. xam ni pour ñoom li ñuy wax état nation ba léegi saxagul ci nit ñi dëgg dëgg dëgg pour ñun état bi pare euh, force extérieure la bu ñu imposé. parce que dañuy jàpp rek ne ci ci ci mentalité populaire état bi prolongement état français la. donte donte indépendance am na fii ay Sénégal la koy diriger ay institution ngi fi ay président ay président national la institution d' accord indépendance am na waaye day mel ni ci mentalité nit ñi yëf yi prolongement état état colonial la pour ñoom force ngu bu nguur la nguur la buur dañ dañ koy wax ne buur du mbokk xam nga boobu waxee mooy kon buur jaambur la boo xam ne dafa ñëw imposé ñu boppam te buur mbokk la ndax ñu ko jiite fi ne ay doomu Sénégal lañ damay wax ne li xamal ne li xamal Sénégal islam fii islam fii islam fii wér te moo sax ci nit ñi damay wax ne boo doon xool institution yi fi nekk bëgguma dugg ci politique sax waaye seetlu la rek ci kaw institution yi fi nekk Sénégal ñi koy gérer boo xool seen i tur Mouhamadul Moustapha ngay gis ala Mouhamadul Makki Makki Makki tur la ci tur am na am sañ fi am premier ministre Mouhamad Mouhamad ibn am nañ fi am nañ fi Aminata Nangam Aminata Nangam Mouhamadul Moustapha tur yooyu nga xam bépp tur yonent bi la kon nga xam ne réew mi réew yonent bi la alayhi salaatu wasalaam waaye li ñuy dund nag ak ak li fi ak li war a am dafa bokkul kon loolu moo lay xamal ne rek dañuy dind dañoo bëri ay ay ay contradiction yu am Sénégal parce que suñu histoire moo demee noonu mais li nga wax nag moom mooy li waroon a am mais suñu réalité réalité Iran bokkul fii contexte la ñuy dund boo xam ne comme ni ma la ko waxee sànq religion dañ ko jàppee affaire privée waaw état bi ñu impose ñu donn état laïque ñaareel ba itam toit bi seen loxo am fi doole loolu ñëpp am ko xam ne Sénégal moom alhamdulilah bëgg fee def lu ñuy xool France fi ñu toll du yomb te France moom islam dañu bañ a dégg loolu moom ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ France xam nañ la fa xam nañ la doxalee xam nañ la xew waaw waaye nit ñi moom réellement islam dañuy moo fi moo fi moo fi aar diine ji mm-hmm. euh, boo xam ne fi fekk ndax mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo ko sosoon li taxoon ñu sos ko mooy rawale seen diine mm-hmm. mosuñu ma gis ne kii mi ci loo xam ne doy na doy nañu na leen loo xam ne mënaluñ ko suñu bopp ñu topp si ko Hmm. waaye nag le modèle mouride par exemple dafa wane yoon wi euh, si wàllu émancipation de la communauté parce que daanaka boo xoolee basé wuñu si dara ñoom daanaka lépp ñoo koy defal seen bopp est-ce que tey tamit jotul ñu calqué dëkk bi ni muy doxee si modèle bi nga xamante ni moom la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba teg. waaw loolu moom mooy idéal. waaye nag da di xam kii mënu koo imposer kenn man su sama sago àdduna sëpp dañu nekk murid waxuma la Sénégal ba ca tubaab yaag indien yaag japonais yaag ñëpp ñu nekk mu rek mooy sama doon sama gént fi ne waaye loolu nag gannaaw ak bunca ñi ngi mën mooy tàmbali si communauté bi ñu yor communauté bi fexe ba communauté bi di dund sëñ Tuubaa di dund njàngaleem sëñ Tuubaa di dund doxaleem sëñ Tuubaa ñeneen ñi ku ne nekk la doy waaye su ma sañoon man ñëpp nekk murit tey waaye loolu mënta mënta mënta nekk fi ne du tee nag ku ne nga baal la nga nekk dama la koy respecté ku ne la ci ndax ku nekk nag ak la la doy ndax yonent bi sax ndax sëñ Tuubaa lu yàlla amul yonent bi amu ko sëñ Tuubaa ko bëgg ko du ko am du bëgg ko ndax yàlla bi ñu bind sax am nañu taxaw lànk di amut di ko saaga ak di ko weddi ak di ko wax lu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo war a lépp moo war a yàlla bind a yàlla def lépp am nañu taxaw di ko saaga ak ko weddi gëmuñu ko kon nag lu ñooñu amut sëñ Tuubaa bëgg ko te sëñ Tuubaa moom ne woon na nabiyuna Mustafa xayrul wara radi fi kulli shay'in wa ma yabaahu sama lépp rek yonent bi laa ciy raas lu may yëngu rek ak lu may dal yonent bi laa raas kon lu yonent bi amul bëgg ko amu ko yàlla amul bëgg ko amu ko te yàlla amul ñëpp topp ko yonent bi amul ñëpp topp kon suñu tubaab du am ñëpp topp ko mukk donte nag li ñu bëggoon mooy ñëpp topp ko ndax léppam njëriñ la faddur wala wa nafoo jaay ndax suñu mooy li nga xam ne amul benn lor boo xam ne ñee ñoo am lor déedéet suñu tubaab lay wax la te nit ku nite du bañ du bañ njëriñam xam ne li ci des mooy ñàkk xam communication bu des waaye suñu tubaab léppam njëriñ la te nit ku nite ku nekk da nga bëgg sa njëriñ kon laa xam ne rek Eh, waaye nag ñëpp topp ko moom mënta nekk fi ne ndax lu yàlla amut yonte bi amu ko suñu toog bëgg ko dudd ko àlangam ndax mënta nekk waaye li doon li ma bëggoon man mu doon sama idéal muy sama gént mooy ñëpp nekk taalibe Sëriñ Tuubaa mais xam nga jamono day dox ñu gis ni avec l' avènement par exemple nouvelle kii bi des réseaux euh, ku nekk yaa ngi daw waxtuma sax dangay dox waaye da ngay daw ñu gis ni boo bëggee a acculturer nit ki dafay yomb lool lool lool jamono nag la. xëy na lañu gën a nemmeeku nit ñi par exemple ñu ngi leen di imposer xalaatub tugal xalaatu occidentaux yi jotul ñu def diisoo waxtaan comme ni nga ko defee woon en si je me trompe pas 1976 bi ñuy euh, euh, tëgg code de la famille. jamono ñoom sëñ Fallou ak euh, ñi mu jamononte woon ñu waxtaanee ko waaye léegi loolu dafa amatul parce que constitution bi sax bi ñu koy def gis nañu ni am na ay mouvement yu jóg nii yi ñu si bëgg dugal baaxul si biir société beeg yooyu kon amul benn fossé diggante état. ak communauté bi rawat na ñi nga xamante ñoom ñoo war a wax yéen kilifa diine yi. wala ñi ñi war a wax ñu ngi wax xanaa dañuy xëy na dañu leen a dégluwut waaye xam nga ñun taalibe murid moom dañuy taalibe bu discipline dañuy dañuy taalibe yu discipliné gannaaw nañ kilifa kilifa ga am na koy waxal na ku jox baatam ku koy waxal su ba su wax jotee kooku la wax. waaye ñu dong yi nga xam toog déglu suñu digal moom ku ne mën am say xalaat waaye nag du mën a wax ci turu yoon mbooloo mi man ngay wax say xalaati bopp waaye nag yoon yi dafa am kilifa kilifa googu am na ku baat baat ba am na ñu ko jox wala ku ko jox kam ko jox wala ñam ko jox ñooy wax ci turam wala sëñ mu waxal boppam dee sur le baat bi dafa am kuñ dénk baat bi wala wala ñuñ baat bi ku ne domaine bi la dénk ak kuñ ci dénkul loolu nag la ngay mën mooy wax sa xalaatu bopp waaye mën a wax ci turu communauté bi xam nga nag en tant que taalib bi bu ci bokk ku bokk ci yëf yi nga mën a wax sa bopp ndax dañuy organ dañuy communauté bu organisé communauté bu am bu am kilifa waaw duñ rek ku nekk wax na lu neexee waaye implication bi ngay wax eh, boobu moom xam nañu wax des na mm-hmm. xañ na contexte bee wuutee xañ na interlocuteurs yi ñoo wuutee ci niveau état bi ak suñu niveau xam ne bu njëkk bokkut ak bokkut ak léegi xëy na ñu nekkoon ci état état bi bokkul ñu ñu nekk fii léegi bokkul yooyu yëpp xëy na ay ay facteurs la yu joué yoo xam ne tax na ba ba ba communication bi ñu daan amee ak échange bi xëy na agul demewul noona wala buy am ci yenn côté lay amee waaye du Facebook ba ba ñëpp yëg ko waaw. mais loolu mën na hypothéquer par exemple avenir génération bi parce que génération bii di ñëw c'est une génération boo xamante ni génération de foi la doon gëm diini gëm tarixa ñu am seen yaakaar am ñu ne topp ba pare ñu gis état di doon buur di mi ci seen kaw bëgg leen xañ ñoom en fait seen destinée ci ay at loi ci ay yoo xamante ni yu ndaw la alors que ñoom li gën a mag ci ñoom da nga ko jox ko ay kilifa diine est-ce jotul kon kilifa diine yi dem tëgg ci taabal état ni dama am sama wàll si dëkk bi ñu toog waxtaan seen biir diisoo. waaw loolu parce que suñu may wax ci turu kilifa diine yëpp li ma li ma wax mooy sama xalaat ci murid yi taalib bu ne kooku kooku ñi amee xalaat a ngi fi ñi ci mën a joxe seen xaalis waaye ku ne neex yoon dafa organisé dafa am kilifa am baat am ñu jox baat bi bu wax jotee ak ñooña ñañ war a wax la ñoo koy war a wax waaye ku mel ni a wax wax xalaatam waaye amuma droit ne tey ma wax ci tur yoon wi wala tey ma négocier dara ci tur yoon wi wala ma wala ma tey ma représenté yoon wi ci nangam déedéet loolu ñu koy sañee def mooy kaye yoon wi moo ko sañee def ak ñam koy bu boobaa nag comme ñoom ko def loolu ñoom ñoo war def li waaye eh, ni nga xamee ne ni nga waxee ne nit ñi nga xam ne noonu lañ gëmee eh, diine ji def ko seen muy seen lépp mu jaral leen seen lépp nam amee ci taalibe noonu la amee ci sëriñ si am na ci loo xam lu xew xam nañ ko mun ñu fi duñ fi def dara lu ñu jëgul dara lu ñu xamul waaye nag organisation bi ak yar bi ak discipline bi mooy tënk ñu bëree bëri ñu bëri ñu war a feeñal duñ ko ne feeñal waaw xam nga Sénégal fi mu toll nii euh, dañu wax nii euh, par exemple euh, murid yi liñ fi participer si wàllum koom ak si doxalin beeg si jokkalante bi dafa am doole ba nga xamante ni tey boo ko ci génne woon lépp mën na paralyser naka noonu kon ñu ngi contribuer di dugal suñu loxo si lépp loo xamante ni mi ngi dox euh, tey jii en contrepartie état nu war a mën a encadrer ba encourager la communauté à travers les bailleurs les entrepreneurs yooyu ñu gën a mën a dox si Sénégal koom bi. waaw xam nga Sénégal nag euh, murid gi nag moom sëñ Babacar ni nga ko xamee. Euh, dañ ñoo yariwul dépendre ci état Sëñ Tuubaa daf ñoo yaral ñu am suñu autonomie am suñu indépendance indépendance financière indépendance économique la waxoon ne na ngeen fexe ba mënal seen bopp ndax ku la mënal sañal la te yàlla nañ ko la war a sañal kon li ñu sa li ñu li ñu yare mooy ñu am suñu autonomie am suñu indépendance du ñu basé ci état ndax loolu dem na Sëñ Tuubaa bi fi nekkee di tubaab bi jàpp ko noonu loolu ñu def ko waaye gis nga ba ñu amee problème daf leen dimbale bañ ne leen dévaluer franc français ci jamono daf leen dimbale cinq cent kon kooku dépendre woon ci ñoom donc kon kon culture murit da cee bokk indépendance da ngay am sa autonomie duñ dépendre ci état loolu moom dañ ko tam ko tam dañu ko yaraale ndax ni ma la ko waxee état bi toujours dañ ko jàppe eh, état buur la te buur da ngay fexe bu mu la sañal wala seen bopp ndax ku la mënal sañal a sañal seen bopp kon liggéey ak jaamu yàlla ci lañ yar taalibe ci lañ yar murid ci la murid gi dox imposé wu nag ci affaire gestion état bi kooku àddunay dox ba àgg ca kooku àddunay dox ba àgg ca eh, te it taxutoon jóg suñ Tuubaa suñ Tuubaa bu fekkoon ne état ko tax a jóg wala jël nguur wala jël gouvernement kon ñu duñ ci jot kon ba sa eh, bi génne ba léegi eh, état bi tabbi na ci loxo waa Kër Tuubaa te dootu ci génne ko woon a jóg am na leen lu ko ndax capacité yi am na fi compétence yi am na fi capacité yi ko yor yëpp am na am na fi waaye loolu loolu loolu du ko taxut a jóg boole ci itam suñu relation ak état bi gis ngeen naka jëkk ni ma sabel relation de dépendance ñoo ñu soxlaal waaye ñu soxlaal leen dara ñun ñoo leen di soxlaal waaye ñun ñun soxlaal leen benn benn yay jëflante ñoom dana ci am waaye loola moom ay individualité la yoo xam ne ñoo nekku ci loola waaye en tant que communauté bi en communauté du dépendre ci état parce que état géré wu ko état financé wu ko état encadré wu ko léegi nag comme comme ci république lañ nekk foo ñu dudd ci comporté wu ku nekk ci république. moo tax ma naan par exemple gox bu mel ni Touba dimension bi mu am si wàllub démographie si wàllub koom mu nekk dëkk bu yëngu a bougé est-ce que jotul aussi état investir si bu si investir ñu gën a yëg ni kat Touba mi si biir Sénégal comme ni que New York nekk biir euh, États-Unis ndax tamit dafa nekk agglomération nekk pôle bu am solo. Ah, loolu dëgg la loolu dëgg la loolu dëgg ndax itam ku ne xam ne Touba li mu représenté pour son dimension religieuse bi sax mais dimension démographique bi nga wax noonu poids démographique bi am am na droit loolu waaye kooku rek état bi parce que euh, bu du toon euh, le plan religieux lim lim li mu représenté mais poids poids ak démographie am rek jaadu na état bi def loolu loolu nag bi ñoo war am boobu conscience du man maa leen koy wax ñoom gannaaw nation intérêt intérêt général lañ fi nekkee réew mi lañ fa nekk ñoo war a xam loolu ñoo ko war a xam doxe ko jëfi ko te bañ a nekk ay wax te bañ a nekk rek ni ma koy wax jàppituwa rek force de frappe électorale bu bu élection jegee rek ñu fexe ba am fu ñu jaar ba ñu waxal leen wala ñu ñu jël fii jàll génn ci déedéet ñoo war a xam ne population fi nekk xam ne ak lu ñu mën di gëm ak lu ñoom état population bi lañ fi tax nekk état bu ñu ko wax nit ñee tax tabax garab yi taxut oto yi taxut ak fas garab yeeg nag yi xam tax ñu wax état gannaaw nit ñi nag boo jëlee Dakar Touba fi ëpp nit bu dee ci dimension yaatuwaay sax Touba gën a yaatu Dakar ëpp fi ëpp population gannaaw Dakar kon léegi li ñu war a mérito euh, jaadu na ci wàll yëpp loolu war état waruñoo toog bu ñu koy wax seen conscience bi ñuy wax euh, seen conscience mooy la war a pousser ñu def ko émergence bi ñuy wax Touba ci war a jiitu Touba a jiitu ndax population bi. <laughs> beneen aspect bi également mooy dañ ko Touba érigé en commune avec l'acte 3 en mais dafa mel na ni également commune bi attanul euh, poids démographique bi ak tamit euh, attentes parce que mel na mbir mi xaw na yéex tey ban modèle nga gisoon également pour gestion locale comme que loolu mooy sa spécialité. Euh, commune bi sax war na ko mën a waaye xëy problème expérience lañu am. xañ na expertise bi xañ na ak problème mu compétence ak problème expertise parce que dëkk bi dafa rëy xam toll ni ay million yi nit bu ñu jékki-jékki xëppale ko ne tey nga géré ko te amuloo yenn expertise yi moo yenn compétence yi dana xaw a waar xañ na avec le temps euh, bu ñu doxalee danañ mën a dem ba mu gën a yaatu commune bi gën a am doole parce que loolu du mën a gaaw mm-hmm. parce que que dima la ko gestion bi dafa bari ay facettes yu mën moom éclairage baa ngi fi assainissement baa ngi fi ndox maa ngi fi éducation baa ngi fi lotissement yaa ngi fi donc yu bëree bëri yoo xam ne lu ci nekk chantier la boo xam bu du jeex laaj compétence bu ko defee eh, am na jamono sax demoon naa bu proposé ay dañuy def ko genre communauté urbaine. Hmm. communauté urbaine Touba nga xam ne quartier yi day nekk ay day nekk ay commune commune commune commune waaw comme Thiès Dakar wala Dakar ni mu koy mel commune d'arrondissement yi commune d'arrondissement Darou Khoudoss commune d'arrondissement Darou Minane commune d'arrondissement Ndindi commune d'arrondissement Darou Manane ñu boole ko ci benn communauté urbaine wala commune wala ñu ko mën tuddee la yoo xam ne euh, mën nañ koo pousser mën naa avancer ba indi lu bare bare ci dëkk bi ndax gérer dëkk du caaxaan gérer dëkk du caaxaan surtout dëkk bu toll nii Touba nag donc loolu euh, bi nekk commune rek léegi yàggul donc 2014 ak léegi xëy na amuñu fi expérience pour xam nga indi na coow bari sax affaire parité baag nañ koy na fekk euh, maire bi nga xam dañ koy nommé éliruñ ko ndax euh, ni ni toogee bokkut ak yeneen dëkk yi waaye loolu ni dëkk bi demee moo tax parce que dëkk bi bokkut ak benn dëkk moo tax maire bi tam da bokkee benn maire yi waaye compétence yi moom compétence la technicité bi ñu war a am technicité la kooku moom ak foo ko mën ndekkee assainissement moom ni ñu koy defee ñëpp war nañ xam éclairage ni ñu koy def ñëpp war nañ ko xam santé ni ñu koy gérer ñëpp war nañ ko xam éducation ni koy gérer ñëpp war nañ ko xam kon loolu euh, ay technique la yoo xam ni dañoo war a am compétence yu ko mën ñu confier ko ñu koy def lépp nag sous couvert xalif bi ndax mooy ndax mooy loolu mooy particularité Touba ndax Touba day moomeel lu càgg da nga ñëw rek def gérer comme ni nga gérer Dakar wala n'importe quelle ville de bokkul ndax boo ko comparé nga la bu nekk ñaan gu nangu nekk fi benn solo mm-hmm. ñaan Sëñ Touba fi ñaan ba ñaan gi nangu kon du bokk benn dëkk foofu rek moo am spécificité boo xam ne foog ñu ko bindul ci këyit itam dana nekk dana nekk coutume bu ñuy bu doxee te mooy moom la kenn mu nekk maire fii loolu loolu bokk rek la fi am sëriñ bi mooy désigné kenn na ma yorul dëkk bi ñëpp ànd ca loolu feneen foo ko waxoon duñu la déglu sax far waxuma la di ko doxal te fii bu ko waxee baat du jib te ki ko dégg mu ko doon bàyyal te mu bàyyi kooku ñëpp xam nañ ko kon fii day dëkk boo xam ne dëkku sëñ Tuubaa la kon ko defee loolu mooy tax rek foog gestion bi dafay nekk tam gestion spéciale dana am aspect technique boo xam ne comme ni ko ñëpp amee la koy amee ndax taalib yi technicité bi am nañ ko moyens yi am nañ ko euh, disposition yi am nañ ko mais mu nekk dëkku baat itam boo xam sëñ bi ko moom mooy désigné ko yor mooy désigné ñu ngi koy déggee. surtout surtout li nga mujj wax sax mooy euh, solidarité bi ñu ne bi ñu nemmeeku vie communautaire bi. rawat na si ñu nemmeeku ni depuis les indépendances les milliardaires sénégalais ñu si ëpp euh, c'est des euh, gens de la communauté ñu gis ni population active bi si mais pouvoir na ñu bari ñuy liggéey eh, nekk si côté exode rural bi ils sont par exemple du Bawol ñu nekk ñoo xamante ni xëy na doon nañ tamit des entrepreneurs am lool taxawaay si koom bi tey jii lu si yoon yu mën a profitoo yi gis nañu ñu ngi tigi liggéey université bi y a des euh, par exemple milliardaires qui se regroupent si benn kii euh, regroupement taxaw ni ñoom ñoo participer tant des commerçants tant est-ce que dañoo war yem foofu rek est-ce que war ñu def leneen lu gën a yaatu. waaw mën nañu wax ne foofu lañu jëm waaye rek wane ñu bëgg si benn lay tàmbalee. Hmm. dañuy wax si benn lay tàmbalee xëy na mënuñoo tëb rek àgg foofu ngay wax loolu foofu ngay fa. Hmm. waaye xëy bu ne ci benn lay tàmbalee Euh, waaye def naa loolu ñu sumb université bi suñu mën taxaa ta sumb te muy sore loolu yàlla ak ak jàmm te ñu fekkee ko te moom itam mu yàgg ko taxaw te ba yóbbu ba mu àgg ba mu yokk ci yeneen bu àgg ak ñuy def ndànk-ndànk bu fekk ñu àgg ñu jëm rek parce que dañu kenn xam nga loolu xañ na xañ na euh, qualité la mais mën naa nekk itam euh, handicap ci wet ndax li mooy ku ñu dominer wala ku ñu conditionné parce que dañu tàmm indépendance dañu tàmm autonomie loolu suñ bee ñu ko yaraw na mu ne woon na fexe ba mënal seen bopp ndax ku la ku la sañal la te yàlla nañ ko la a sañal donc kon idée idée autonomie ak idée indépendance économique indépendance financière boobu ñu sëñ bi tàmbal loolu ci lañ màgg ci lañ yaru ci la ñuy dox donc duñ nangu kenn imposé ñu imposé ñu dara loo xam ne ëllëg day wax ne maa tax mi tee nangam maa tee ñu def nangam déedéet loolu yoon nangu ko. wax tamit sëñ bi ñu ne avenir monde bi mi ngi posé wu si science ak éducation mais dañoo gis ni en fait Touba ñu ngi tabax université mais si base bi. si base bi est-ce que am na benn fondement boo xamante ni mën nañ fa tànn mu nekk gré officiel mais pas formel li ma bëgg wax foofu noonu mooy plan d'éducation wala programme d'éducation bu Touba nun ko war a tëggee bu mu méngoo jamono ndax université bi bu paree ñenn fay jàng mooy sama problème ñenn fay ñenn fay jàng ñi. waaw xam nga université moom ay programme yu programme yu bari la eh, boole na njàngum moderne d'abord njàngum daara dañuy wax njàngum majalis alxuraan ak majalis mooy téere ñuy firi boole na njàngum tubaab moderne itam. donc xam ne bu noppi ñu xam nga fii moom d'abord di dëkku diine la te islam alxuraan lépp ngi ci bu jàngee alxuraan jàng xam-xamu diine nooy jaamu yàlla nooy liggéey boo noppee door jàng science nag science physique la science naturelle mathématique philosophie jàng loolu lépp da ko war a yooyu yëpp ñu ci programme université bi am na ñu ko chargé boo xam def nañ ci gëstu def nañ ci étude ba document yi pare na donc day nekk loo xam ne formation dañuy jàng mathématique dañuy jàng science naturelle dañuy jàng science physique dañuy jàng informatique dañuy jàng gestion dañuy jàng agronomie dañuy jàng euh, euh, yooyu yëpp dañ koy jàng ci daara université bi ndax science moom li suñu mag yu xam xam xawma ko bokku ci te te te programme université bi ni ñu ko tëralee yooyu yëpp am na ci fi mu ne njàngoom diine am na ci njàngoom science am na ci njàngoom histoire am na ci njàngoom euh, science sociale am na ci ah njàngoom science science économique am na ci ba ci gestion loolu lépp am na ci eh, ci ci njàngoom université bi donc day loo xam ne lépp lay boole day boole jàng moderne bi bi xew ak njàngum diine bi nga xam ne la ñu fekkoon loolu bokk na ci nekk particularité université bi te te fi mu ne dëkk bi école yoo nga wax mi ngi fi am fi mu ne ay école yu bëri ñu ngi koy samp ci dëkk bi ñu ngi koy samp Mbàkke googu nga dëkk ñu ngi koy samp ci dëkk bi ñaa ngi fi jàng ña ngi am seeti baccalauréat ñu ngi jàng jàng formel fi mu ne boo doon seet domaine compétence yi taalibe yi lu ne am nañ ko ci donte jamono yooyu sax Touba xañ na amutoon école française formelle lu benn benn école bu fi nekk wala ñaar mais léegi bari nañ fi mais teewul taalib yi ñu daan gën di jàngi fu nekk ba ci université bi réew yi da ngay fekk ay ingénieur murid ñu jàngale mathématique ñu ngi jàngale science physique ñu ngi jàngale astronomie ñu ngi jàngale domaine bu ngi jàngale médecine te ay taalib murid lañ yoo ngi ne siw fu ñu te lépp lépp dina ñëw. université daam lu koy gàttandu sëñ bi par exemple ay ay ay collège. parce que loolu mi ngi ci programme bi c'est-à-dire université bi ko tudd mais mi ngi mi ngi commencé jàng primaire xam nga université doo tëb dugg fa mais université yi programme nañ ci loolu ñu ngi tàmbali ci xale yi am juróom-ñett juróom-ñett tàmbali da tàmbali tàmbali ABC ba fii ñuy dem baccalauréat ba fii ñuy dem université. kon day nekk école euh, euh, école primaire lay am am ay école secondaire muy collège ak lycée ni ko waxee ba fi ñu dem université université doo ko tudd rek day benn Azhar Azhar ngay Al Azhar mais dafa am école primaire am école secondaire ay collège ak lycée lycée am baccalauréat mu dem université mais teewul li ñu ko tudd université Al Azhar bu Égypte ba mais école primaire la commencé man ngay wax ne jardin d'enfants sax la commencé kon loolu université bi waaye day lamb yooyu yëpp système d' éducation la système système d' enseignement la éducation murid la boo ne day. voilà ba ba ngay am doctorat wala ba ngay am agrégation. loolu ba ba fi ngay am agrégation wala ngay am doctorat noonu lay demee. xam naa tëjee rek si. Euh, mbas mi nga xamante ne mooy coronavirus am na ay jeexintal yu bëri si biir réew mi ay boo de compte lu su mel ni stigmatisation bi ñuy wax ndax boo turee dëkk bi fii nga jóge daanaka daal doo fi dugg ba pare aussi am na beneen problème de communication parce que nit ñi ñoom ba léegi amuñu confiance su état bi par rapport ak ni muy doxalee euh, communication quotidienne bi mu mel ni ba tey tamit jafe-jafe am na coronavirus ñii ni am na ñii ni amul waaye ñu xam na ne am na waaye lan mooy problème bi dëgg dëgg dëgg ba nit ñi amatuñu confiance état bi ba sénégalais yi aussi tamit coronavirus bi indi benn source de division seen biir xoloo bi bare coow bare pour ñëw sama dëkk parce que fii nga dëkk ak yooyu. lu xam naa moom ko ba Sénégal mel noonu rek dafa am ñoo xam moom dafa am ñu leen yàlla bindee eh, te diggante nit ñi xam nga day lu yàgg kooku moom du ma gis sori ndax nit ku nekk ak ni nga jàppee état bi waaye li ma la waxoon ne toujours état bi nit ñi day am ñoo xam état donc lu jóge ci état rek dañ ci xaw a douté xaw ko soupçonné bon xëy na loolu nag euh, éléments yu baree tax du ma ci mën a prononcé waaye loolu mu am na. waaw mais Touba bu ngeen xoolee stigmatisation boobu nga wax am na ci. ndax booy déglu rajo yeeg compte rendu yu ñuy def ak journaux yi nga koy déglu di ci télé bi da ciy yëg loolu euh, waaye loolu yëpp amul solo dafa am ñoo xam ne euh, lu ñëw dañ koy di génne contexte am te Touba boo booy seet par rapport ak yi ñu fi wax par rapport population bi danga nga xam loolu dara. poids démographique bi Touba am bu ñu fi tudd benn cas wala ñaari cas ci population bi waaw da ngay xam ne du dara boo xoolee par rapport ak Dakar nga xam ne après Dakar moo ñëw moo ñëw deuxième position donc ci ci ci population kon foofu bu ñu fi tudd benn cas wala ñaar par rapport population bi loolu dara mais dafa am ñoo xam ne Touba daf leen daf leen daf leen daf leen daf leen saf ci a wax na yàlla leen na toll dañoo dañoo xamul li xew toujours boo waxee ñu ne waa Touba ñoo ñoo ñoo ñoo contaminé réew mi Touba def lii Touba te bekk du loolu sore sore nañu ko lool suñ Touba lim ñaan ci ñaan ci balaa lim ñaan ci ay mbas loolu wute nag sore nag dëkkam ci lu mel noonu te duñu xool toujours nombre cas yi ñuy wax ak nombre population Touba te pourtant ñi ngi dëkk yi waaye Touba la ñuy du dëkk boo xam dafay nekk tasaare leen lu dul noona Touba sëñ Touba lam ñaanoon ci ñaanam ga rëy boo ko yàlla ne yaa maalikal ba mu ne yàlla yaa an xawadin yàlla yaa am peeg lépp yaa mat lépp yaa moom fépp ak ñëpp ak lépp ba ko yàlla xamalee ne ko loolu loo ko mottalee may la ko da ko ne irham jami alwara yàlla na nga yërëm bindeef nag du jël ak lu noonu ko di ko jëmale bindeef yi bindeef yëpp la te bindeef yi nit ñaa ngi ceeg mala yeeg garab yeeg géej yeeg ndox yeeg ba ci jëni ci biir géej sax bindeef yi lañ bokk am ak yow jotaay si ganu koor gi si Ndindy Actu xanaa ñu bàyyi rek nga euh, def sa kàddu gu mujj si émission bi euh, sa diggante ak internet yi. wallaahi loolu si Babacar mooy di leen sant di leen gërëm rek ci ñëw ngeen ñëw fii tey ñaan euh, ñu àggale koor gi ak jàmm ni ñu ko tàmbalee ak bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañu ko jeexalee ak alhamdulilah rabbil alamin tey nuyu mbokk yi ñu seen yëpp di nuyu soxna Ndeye Mbacke ak waa Ndindy Actu ñëpp.

ndax Sëñ Tuubaa moo ne woon yaa man yarumu dafa kulli daa i falaa tufaariq matlaba shifaa'i hamdan li munsili danaa wa daa i wa munsili shifaa'i wa dawaa'i man amara al ibaada bi du'aa'i li ne yàlla ci ñaan lay dindee balaa yëpp waaye ci yaakaar lay indi xéewal yëpp fa bi du'aa'i yasrifu al balaaya wa bi rajaa'i yujdi al ataaya kon ci barkeb Sëriñ Tuubaa moom yàlla yàlla jële fi mbas mi yàlla yàlla ci njaboot gépp ci fii ci biir Sénégal ci biir bi ñëpp rek yàlla musul ci ñëpp te yàlla jële ko fi ndax yàlla mi ko fi indi en tant que virus yàlla mën na ko fa jëli sànni ko ci àll ba mu jeex tàkk ay xéewal ñëw ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla na ko yàlla defal jàmm ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf mbokk internet yu Ndindy Actu amoon nañu mbégte ànd ak sëriñ Mamoun Mbacke ibnu Cheikh Mouhamad Fadal Mbacke si ganub euh, koor gi si Ndindy Actu jox leen ndaje ba beneen jotaay jërëjëf